voilà euh, ma ñëwaat rek ziyaare leen bu baax a baax a baax a baax jox leen seen wàccuwaay euh, tolluwaay jamono la nag justice for all boo leen xoolee ci suba si photo bi lëmbee àdduna bi yëpp wala vidéo bi lëmbee àdduna bi ak tweet yi lëmbee àdduna bi dama yaakaaroon ne euh, France la xewee wala Amérique wala Turquie wala Pakistan wala Arabie Saoudi euh, non non Sénégal la xewee Sénégal la ñu ne journaliste bu jigéen boobu di Maimouna Ndour Faye la ñu ne dama wax nag la ñu ne ak benn accent bu bu bu bu mag la ñu ne la la ñu ne la ñu ne ndax man saa bu président Macky Sall tweeté rek xam naa ne am na lu ci rax ba pare nag ñuy pare Karim Wade tweeté Karim Wade tweeté na de lu lu lu lu lu gaawul déglu ma encore saa bu ma gisee Macky Sall tweeté ma gis Karim Wade tweeté lépp lu nekkoon ci man ma yaakaar ne lu jub woon day daal di wàññeeku ci man ma xam ne njuuj njaaja ngi ci biir voilà maanaam bi ma yeewoo photo bi ma njëkk jot ci sama benn xarit bu jigéen ma koy nuyu de passage muy bañkat mu ne ma lumière sur ça mu ne ma lii na leer dañu bëgg a xam lu xew bi ma ko waxee ma activer samay réseau journaliste d'investigation yeeg enquêteur yeeg police ak gendarme rek ma woo ñëpp donc xam leen ne boo leen xoolee bët yi sax yéen a ngi gis mi ngi sëdd donc jóg teel woo ñëpp waaye ci biir loolu lan laa gis dama gis ay tuitu Macky la ay tuitu Karim Wade ma ne ah donc réponse bi jot nañ ko euh, Macky la ak ñoom ñoo nekk ci ginnaaw agression bi ngeen gis ci Maïmouna Ndour comme niñ ko defee woon ci ñeneen ñoom ñëpp deal la rek un grand deal par un grand groupe de personnes patriotes yi fexe leen lépp loo leen man nag fii ba suba ba ginnaaw suba ba ginnaaw waati suba ngeen génnee crime Macky Sall yim fi def yëpp ñim fi rey yëpp ñim fi gaañ yëpp ñim fi sacrifié yëpp nañ ko génnee pour àdduna bi teg ko ba parce que ñun xam nañu ne man Ousmane Tounkara xam naa ne may Maimouna Ndour fay jëkkëram officier la nee naa leen faram faram faram rek faruma Maimouna Ndour fay milliardaire la maanaam milliardaire la Maimouna Ndour fay dañ ko fayal suite teeru bi teeru bi hôtel teeru bi suite dañ ko ko fayal pour un an suite teeru bi c'est au moins au moins deux cent cinquante mille par nuit ñu fayal ko ko pour un an may Ndour Faye sécurité Bep nit bo xam Sénégal Maimouna Ndour Faye moo la sécurité Ndour Faye am caméra de surveillance Maimouna Ndour Faye Auto luxe lay dawal yu am sécurité donc naka suis en Ndour Faye ah ah ma awal ah, ma médecin ah, ma taxi taxi awal ah, ma taxi mise en scène totale mise en scène totale ba paré nak ya yo, ñu ngi bind <coughs> nee ñi def ñaawteef bi dinañ leen japp ah kon Sénégal am jappé kon ñi ray xalé yi man ngeen leen japp ñi gañ xalé yi man ngeen leen japp arrêté leen ces mises en scène ñun élection lañu laaj Macky Sall wuñu Macky Sall pour mu tourner ñu ay film indo Sénégal Mariama Sagna ba léegi ay doomam a ngi jooy seen yaay Pape Abdoulaye Touré ba léegi yaayam mu ngi souffrir xool lan moo dal doomam Pape Abdoulaye Touré doole moo tax deewul maanaam il était fort et jeune loolu moo tax deewul torture àdduna bi yëpp daf ñeen ko ko Maimouna Ndour fay dafa am sécurité léegi nag question laa laaj ñaata garde sécurité ñaata garde corps la am Je vois le nom de Farbangom. Maïmouna Ndour Faye arriver chez elle avec Farbangom. Farbangom, écoutez, hein. Farbangom, le, plus, le grand scénari scénarioriste, de Macky Sall. Madame Borom scénario caméra de surveillance. que Maïmouna Ndour, bu caméra Voilà, l'agresseur. Damané les caméras devant le domicile de Maïmouna Ndour ont filmé l'agresseur qui l'attendait devant chez elle dina ma Macky sait très bien que ce sont ses foussons et tout le Sénégal voilà déglu reconnaît le visage de son agresseur je le dis ici les commanditaires seront connus et des non sortiront. Ce sont des foussons du régime. Encore une fois, quand un régime tombe, les gens ont peur et très peur, ils deviennent dangereux. Pour tout le monde, Le silence du régime sur les conditions de l'agression. Dès qu'il communique, si c'est fake, ça va sauter comme l'attaque terroriste du bus d'Antoine Diom. donc dama ne nañu Sénégal dafa torlu ci un tournant décisif ci une histoire nañu bàyyi Damané, le complot de l'agression de Maïmoun a été décidé par trois personnes. Trois personnes. Damané, complot Le complot de l'agression de Maïmoun a été décidé par trois personnes. Dont Moussa Fall à la tête. doudeng. Damané, l'agression de Maïmouna Ndour Faye ñetti nit ñoko programmé ki nekk ci bop ñep moy Moussa Faye Moussa Fall xam nga ils sont nuls vous êtes nuls gars encore une fois le grand rassemblement du front de la résistance ce samedi 2 mars à 15 h au terrain HLM Grand régime Macky Sall bi xam na li dal Maïmouna Ndour dama leen ne nervi APR yi ñoo attaqué Maïmouna Ndour Faye ay nervi APR ñoo attaqué Maïmouna Ndour ay nervi APR ñoo attaqué Maïmouna Ndour Faye et vous le savez yéen xam ngeen ku ko attaqué nañ dem. damay bañ waa APR def la suba sommation. déglu déglu leen fii déglu leen. bëgg nga taxaw. sama sœur la. waaw. damay bañ waa APR def la suba sommation. nañ ma def sommation. ah bon. tu es prêt. man pare naa. dafa am benn dafa am sa beneen. affaire naan dañuy changer candidat. wax. nañ ma ne kooku waxal. ma ne. man sama sœur waa APR. bugguma. <laughs> nañ ma am problème mais je pense pas que. mën na am. yéen a dégg lii nga menacé nit. en pleine émission. bëgg nga taxaw. sama sœur la. waaw. damay def la suba sommation. nañ ma def sommation. ah bon. c'est vrai. man pare naa. dafa am benn ah, dafa am sa beneen. affaire naan dañuy changer candidat. waaw nañ nañ ma def waa affaire nañ ma def formation naa leen wax. nañ ma non non ma ne kooku waxal. ma ne. xam nga man sama sœur la. waa APR. bugguma. <laughs> nañ ma def formation APR. bu baax man dina am problème mais je pense pas que. bu dee mën na am. lii ñun ñoo ko déggandoo. <coughs> dans un pays normal. Farba Ngom la lañu war a njëkk interpellé xale bu góor bii mi ngi tudd Pape Abdoulaye Touré kii Pape Abdoulaye Touré la tudd ak agression yi ngeen gis mu dal ko ni yëpp ak adduna bi yëpp jooy adduna bi yëpp jooy c'est incroyable mais vrai Pape Abdoulaye Touré mii dañ ko jàpp agressé ko duma ko gaañ ko damm ko yóbbu ko dans les lieux de détention de la gendarmerie ba pare yóbbu ko prison ba mu neex leen ñu bàyyi ko dama bëgg ñu dem déglu kàddu mu sell mi dem nañu ñëwaat ci kàddu Ousmane Sonko koy tuuti. gaa yi jéggal leen ma de. I have done it. que ne cette histoire de CREI là c'est un danger pour le pays. bu paree nag ci acteur politique yi dina fi duma citoyen ba ci mbir kàmm te kenn du am foo joxe kon li ñu bokk muy réew mi nga xam ne ñëpp xam nañ li dafay xew du yoon jël say mbokk ak say say lakk leen sa gannaaw ku ñu ne sàcc nay milliards sax mun na dem tëdd nelaw. li seet ku àndul ak yow suñu nee fukki dërëm manqué na ci comptabilité sax nga ne kaso. voilà ki c'est le président Ousmane Sonko qui nous a donné raison encore sur Macky Sall ndax bis bu ne mu génn mu wax ñu ben affaire dama bëgg a laaj Macky Sall ak ay enquêteurs lan mo xew ci kaw Philbert Sambou ak Didier Badji Didier Badji soxnaam génn na àddina fan yi paase daba mayor nag ay vidéo yu triste ci moom ak ay photo yu triste mënuma ko partager Filbert Sambou yaayam génn jooy doomam ne bu justice amul ci mbiru doomam moom du dund fekke ko nee ñu génn na àddina yaayu Fulbert Sambou génn na àddina jabaru DJ génn àddina léegi nee ñu tey bi ñu yeewoo Maimouna Ndour Faye moom la ñu agressé Karim Wade gaaw tweeté Karim Wade moo gaaw def tweet Karim Wade de Karim Wade mi rey suñu ñeenti doom ci fan yi passé ci loi bu tappale bu ñu passé assemblée nationale ñu fetal ci suñu ñeenti doom te Karim Wade génnul benn yoon tweeté Karim Wade nee na yaa na ci mbirum may Maimouna Ndour Faye àdduna bi yëpp di dégg ànd déglu lii ah. voilà nañu déglu nañu ànd lii. ngeen xam euh, li tax ma xaw a ñaaw njort dem trop si émission bi mu doon am nañ ko déglu ba xam déglu leen. séquence bi. Euh, euh, waa PDS wokk bu dajee gestu la le but li tax affaire sawar ci jàppale PDS parce que benn. Eh, bëggoon nañu changer seen candidat bi Amadou Ba. ah kooku kooku waxal nag mooy mun a. xaaral rek xaaral rek tànn nañu taxaw. sama sœur la. damay bañ waa APR def la suba sommation. dégg ngeen foofu damay bañ suba waa APR ñu def la sommation dégg ngeen loolu. voilà déglu leen loolu rek déglu leen loolu rek. dama bëgg ngeen xam ne Maimouna Ndour Faye dafa am émission ak Farba mu ne ko waa APR de da wokk bu dajeeg gestu la gestu bu dajeeg wokk wokk bu dajeeg gestu motax ñu bëgg tan Karim Wade def ko candidat dañoo bëgg a changer candidat changer Amadou Ba jël Karim Wade mu doon candidat Farba Ngom fu ko ne ko damay bañ ñu def la sommation menacer quoi d'une autre façon na Ndour fay bobu pour la première fois ak garde-corps yi mu am ak auto yi mu am ak way bu yagn bi mu dekk pour la première fois né ñu yayo na Ndour fay a été agressé Maïmouna Ndour Faye est pro Amadou Ba bàyyi leen loolu xel pro Amadou Ba la de Amadou Ba lay liggéeyal loolu man mën naa leen koo garantir te moom du ko nëbb sax ndax moom mercenaire la donc maki Sall ak ñoñoom encore spécialement Farba Ngom dégg nañ ko àdduna bi yëpp dégg nañ ko muy may Maïmouna Ndour Faye fay un monde sérieux Farbangom serait cueilli de chez lui immédiatement et transféré en prison. Dans un monde sérieux. Warouma la sax enquête. Parce que Manulo, aduna yep di deglu, aduna di setan. Nga nga ne Maimouna Ndour Fay, hein, damay bañ wa APR def ak yow nii Maimouna Ndour fay bobu ñibi kërëm ñune ne yaayoo ko jam abdomen ci ci ci xol fi ñu ko mën a jàmm dee yëpp ci loxo fii lañu lañu la ñu xotti muy nàcc deret <laughs> wool ma ambulance waaw wool ambulance waaw wool ma médecin mare may mun a nduur fay laay wax de may mun a fay à des gardes du a may mun a nduur fay à une voiture de luxe jëlal ma taxi waaw eh, jëlal ma taxi may mun a fay à une voiture de luxe elle a des garde-corps yi protéger leen live bi dañ koy attaquer partager leen ko li may wax ni arrangé wu leen waa APR ak Macky Sall ñoo nekk ci ginnaaw agression Maïmouna Ndour Faye waa APR ak waa Macky Sall ñoom ñoo nekk ci ginnaaw agression Maïmouna Ndour Faye ne tombons pas dans leur piège on a dénoncé parce qu'on est sénégalais et on doit dénoncer loolu moo tax ngeen gis ma dénoncer ko ñeneen ñi yëpp tamit dañ ko dénoncer député yeeg candidat yi tout le monde doit dénoncer ndax kat ñun Sénégal élection lañ fa laaj laajuñu ñu faray nit ñu Macky Sall pour mu dem ray ken dañ ko né mu teug fa ay élection yu jup yu transparent sénégalais yi dem voté ki ñu bëgg ñu tànn ko donte maki Sall bu reyoon magistrat sax dañuy dem élection Macky boo reyoon sax ab juge dañuy dem élection boo reyoon sax ab candidat ndax nag damay dànkaafuwaale candidat yi pour ma wax leen Macky Sall ba léegi si information yi ma jot Amadou Ba moom dana ko lekk Amadou Ba moom nee nañu il faut mu dibi ko rek wala wala yaasa ko dama ne Macky ak waa APR ñoo nekk ci ginnaawu Maimouna Ndour fay ndax déggante nañu ndax yëgoo nañu ndax xamante nanu loolu dootul débat Maimouna Ndour Faye même les bébés du Sénégal savent que même les bébés du Sénégal savent que Maimouna Ndour Faye

ngeen bëgg a concentré wu ci mbirum Maimouna Ndour fay yéen xam ngeen ne jàpp fu dëgër xam ngeen ne jàpp leen ci dara na Ndour Faye ñaata garde corps la am non Amadou Ba dañ koy rey Amadou Ba moom Macky Sall da koy yaasa moom Amadou Ba Macky Sall bu doon da koy fusiller sax dina ko rey loolu moom nañu len ko wax Amadou Ba donte Macky Sall da koy fusiller sax dina mais nous date bi lañu il ne faut pas être déconcentré Macky Sall qui a eu l'audace de tweeter aujourd'hui néna Macky Sall de dafa tweeter <coughs> gars yi dama bëgg ngeen wax ñu kan moo rey responsable bi ci Ngor qui a tué ce jeune qui a tué ce responsable à Ngor kan moo ko rey kan moo rey responsable bi ci Ngor dama ne bàyyi leen seen caaxaan yi dama ne arrêtez vos manipulations ñun duñu ay reykatu nit ñun xam nañu ne Macky Sall ak ñoñoom ñoo nekk ci donc Maimouna Ndour na ngeen fexe génnee caméra yi génnee de surveillance yi ñu xam li ndege Maimouna Ndour borom auto yu rafet yi Maimouna Ndour borom sécurité bu deuguer bi Maimouna Ndour borom faru milliardaire bi Maimouna Ndour borom jëkkëru officier Maimouna Ndour bobu ken munu ko agresser n'importe comment donc dama né benen affaire aussi ma rassurer sénégalais yi rek ne Maimouna Ndour sa vie n'est pas en danger né nañu contrôler nañu bép situation bo xamné ne na mettre sa vie en danger may a Ndour maanaam bakkanam nekkul ci xottu gerte tane na bu baax loolu la ñu wax ñoom pour te dire on a les informations bakkanam nekkul ci xottu gerte jamu ñu ko fenn fu dangereux aussi ci loxo lañ ko jam fii àdduna bi yëpp di gis ay tappale ak ay njuuj njaaj may wax ay quelques journalistes nee nañu ñoom dañuy solidariser noonu di bind seeni ay tappale waaw yéen a ngi fi woon bi ñuy jàpp Pape Alé Niang de les mêmes journalistes là xam ngeen ne patriote ñun Pape Ndiaye la ñu gën a mere sax may mën a nduur Pape Ndiaye mu Walf lañu ñu gën a mere sax ka may mën a nduur pour pourtant mi ngi dund di doxantu indi na fi sax moom famille détenus yi ñu agressé leen biir Walf aduna bi yeb aduna bi rien ne s'est passé dara xewul donc ñun nekkuñu ci ay et pour la première fois ñu gis Macky Sall exactement effectivement Pastef Niger pour la première fois on voit Macky Sall écrire tweeter sur la barbarie qui arrive mu ne ndeysaan yaayoo mu ne waxu journaliste comme taskatu xibaar yi kenn waru leen tënk et pourtant Maty mi ngi ci biir kaso bi mi ngi ci biir kaso bi moom Macky Sall mi ngi ci biir kaso bi moom Macky Sall coromaxu Mandela tëj na ko fi camp pénal façon torture bu ne ndaw si subir na ko ñoom Falla Fleur Pape Alé Niang

mais on ne pas des personnes violentes kenn violenté wul Maïmouna Ndour Macky Sall moo violenté Maïmouna Ndour moom ak waa këram voilà ba pare am na ku ne Grand merci de dire aussi dans les infos c'est un seul agresseur voilà comme niñ ko waxee su fekkee am na nee nañu c'est un seul agresseur s'il y bu dee am na benn agresseur la donc dama ne ñun laalewuñu jegewuñu gaañuñu jamuñu defante wuñu ak Marie Maimouna Ndour li liñ ko meree wax nañ ko te ñu ko koy toppee c'est ce qui nous intéresse tout le reste ne nous intéresse pas ñun na jaaxal nañu ak doomu aadama yi fi dee ni mu tollu ak doomu aadama yi gaañu senegal ni mu tollu ak doomu aadama yi ñu agressé ni mu tollu ci Sénégal Macky Sall benn nit lañu gis gars yi may leen ma ma ñëw ci info info rapide maa ngi jéggalu de voilà voilà voilà non non non dama jël ma ne maa ngi jégal léegi am na dara bees na. ok. okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Perfect. Okay. Okay. Okay. Mhm. bàyyi bàyyi bàyyi chauffeur bi bàyyi chauffeur am ci liggéeyukaay bi à une heure du matin ok ok. mm Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. mm-hmm. la ok ok ok ok ok ok bien ok bien reçu merci voilà info rapide nee nañu gaañu gaañu Marème euh, a nduur fay bi xóotul maanaam mettiwul boobu mettit jànq bi nettoyé nañ ko mais a nduur fay aussi nee nañu ba léegi encore une fois a Ndour fay kii nga xam ne déglu leen ma encore une fois Maimouna Ndour Faye nee nañu kii nga xam ne moom moo ko moom moo gis ci liggéeyu kaayam nee na dafa bàyyi otoom une heure du matin ak chauffeur am Maimouna Ndour Faye dafa bàyyi chauffeur ak otoom ak ay garde manam garde corps mom je ne sais pas mais dafa bay ay auto ak chauffeur ci liggéeyu kayam ay inor h du matin chauffeur ak sa auto nga bay ko ba legui ni nee ñooñu liggéeyu kayam buñ ko laaje ban clinique la nek nangu wuñu wax ban clinique la nek ben nit mo xam clinique bi mu nek Modou Awa je ne sais quoi benn nit Modou Awa jeune ne quoi moo xam xaaral leen baal leen ma allo maa ngi delloo ziar da nga bëgg ma dugal la waaw vas Uh-huh. Okay. Mm-hmm. Okay. <coughs> okay. mm Uh-huh. 嗯，嗯，嗯哼，多了？嗯哼，嗯哼。 Uhum. Uhum. Mhm. Uhum. Waaw, tá, farma ngoom c'est pas possible. Mmh. <laughs> Voilà, Mm-hmm. Mm-hmm. merci beaucoup voilà donc gars euh, scénario bi Maïmouna et Cheikh Yérim travaillent pour Amadouba. ils ont déjà récupéré l'avance pour yor communication Amadou Ba léegi beneen pàccu APR bi nga xam ne ñoom bëgguñu Amadou Ba ñoom ñoo nekk ci ginnaaw mbiru may Maimouna Ndour Faye donte sauf que Maimouna Ndour fay bokk ci deal bi parce que Maimouna Ndour fay hopital bi mu nekk wala bu nekkee hopital c'est Modou Awa Ndiaye moom rek moo ko xam nanguwuñu wax ken ban hôpital la nek te kol bu ndaw lañ ko defal ay takayam ay bijoux ñu ngi ci loxom ba légui agresseur agresseur bo xamné ne bijoux yi mi ngi ci loxom tous ces bijoux sont présents jëlaluñu ko dara moom mëna Ndour fay dafa bàyyi otom liggéeyu kayam une heure du matin jël taxi je ne sais pas pour quelle raison ndax oto moom du paan moom oto bu bees la ci Range Rover yu neex yi lay dawal donc léegi waa liggéeyu kaayam nee nañu tàppale njuuj njaaj njaxas boo xam ne kenn xamul voilà et le téléphone qui filmait aussi jar naa laaj mbindaanam ndindaanu ma ne Maimouna Ndour fay bëgguma sori ci ay détails parce que bëgguma ñu dem jàpp ku tamit moo nettoyé gaañ-gaañ bi te nee ñu gaañ-gaañ bi c'est pas sérieux donc liñ leen di woon noonu ay deret yi sottee ko ak ay nangam ay film Maimouna Ndour fay mu tuuroog deret non mise en scène la loolu mise en scène la maanaam ay communicateurs ñu ils son très forts te jigéen la te ñoom xam nañu fu ñu bëgg seen communication bi yegg wa APR sa bu ñu ñewoon ci Maïmouna Ndour fay bëgg wañi Amadou Ba daf leen di bloquer parce que mom Amadou Ba moko fay pour mu defal ko communication donc beneen pàccu APR bi bëggul Amadou Ba ànduñu ak Marème ak Maïmouna Ndour Faye ñooñu Maïmouna Ndour man ta def ak ñom pour ngeen déglu bu baax ça n'a rien à foutre ak benen nit APR ak APR ci bopam la sauf que Maïmouna Ndour fay nangu bok ci dil bi mom ci bopam mu and ak ñom ci dil bi pour def ñaawteef bi li yeb pour suñu ay élection tout ça pour rien donc dama né nañu focus delu siwaat encore ci suñu ay élection ñun kenn mënuñoo nax askanu Sénégal bi yeewu nañu yeewu boo xam ne kenn mënatu kenn mënatuñoo nax foto baa ngi nii voilà xool leen kol bu ndaw biñ ko defal photo Maimouna Ndour baa ngi nii xool leen kol bi ci loxo bi ak ngeen xool bi jui donte loxo yi nag xam naa war naa seeti Maam Njaay savon waaye xool leen loxoy xool leen Maimouna Ndour Faye loxoom bee nekk nii xool leen fii dagg-dagg bi dama leen koy agrandiral ngeen gis ko xool leen dagg-dagg bi gis ngeen kol bi fii kol baa ngi ni xool leen bijoux yi ci loxo bi bijoux yëpp a ngi ci loxo bi mi ngi ni kol kol bii lañ ko defal madam Natch voilà mi ngi nii yéen a ko gis wala mi ngi tëdd ci ab lal boo leen xoolee lal bi mi ngi ni tëdd ci ab lal ñëpp a ngi koy gis ay loxo ma ngi nii loxo bi moo dagg ni ci kaw boo leen xoolee à di ngeen gis loxo bi donc foto bi génn na àdduna bi yëpp gis téléphone manquéwul wul dara manqué wul nothing mise en scène totale mise en sen totale ci la ñu nekk nañ ko contrer waat rek voilà boo leen xoolee loxoom yii Mame Ndiaye Savon la war a gën a seeti que defe naa leneen loo loo mën a xalaat déedéet loxo la loxo ki naan xanaa ci biir bi lañ ko jam loxo la mi ngi nii loxo loxo la ci loxo bi pour pour yàq ko pour changer communication mi ngi ni mi ngi nii ci loxo la <coughs> dagg bu ndaw te dafa bàyyi chauffeur ba kat déglu leen ma de ndaw sa dafa bàyyi chauffeur ba te demul ci hôtel teeru ba ndax teeru ba dama claté deal ba ndax teeru ba paatu couleur bi ko koy fayal xam naa da boo fa demee masiba naaru laay dina am léegi Maimouna Ndour fay mooy seen aji saar bu bees encore une fois bu leen ñu fontoo bu leen ñu fontoo de bu ñu kenn fontoo bu leen ñu divertir dañu bëgg ay élection dama ne ay élection la ñuy laaj nekkuñu ci ay tappale wala ay diversion on demande des élections bàyyi leen seen caaxaan yi arrêté leen seen magu yi arrêté leen seen tappale yi arrêté leen seen caaxaan yi waxoon nañ leen réseaux sociaux yi looleen leen fi dugal ci suba ci ngoon ñu demantale ko lépp ay fen la li ngeen gis ñu dugal yépp ci Maimouna Ndour ay tappale la arrêté leen tappale yi arrêté ce montage On est dans du sérieux. Parlez-nous du sérieux. dañu nekk ci lu sérieux wax leen ñu lu sérieux dama ne wax leen ñu lu sérieux la ñu bëgg a dégg On veut entendre du sérieux. N'y a pas de tchakani. Dans nous défendons la violence? Quel monde nous défendons Nous sommes contre la violence. Nous sommes contre la violence. Quel monde déedéet dañuy xeex nag dañuy défendre suñu bopp dañuy fen dañuy tapale ci ay njuuj njaaj la ñuy dox que ça cesse xam ngeen këll ne Maimouna Ndour fay amul benn nit bu ko xam ngeen këll ne Maimouna Ndour fay kenn gaañu ko arrêté leen ce régime délinquant de Macky Sall ce régime vaillu bandit terroriste de Macky Sall il faut arrêter à agresser les gens salaam salaam soxna Adji Ndaw maa ngi lay ziyaare bu baax a baax a baax une brave kii nii suñu sœur Adji Ndaw mi ngi soog a génn ci ay jafe-jafe nii ngeen koy gisee nii jàpp ko tëj ko ci biir kaso jaay ko doole mi ngi soog a génn ci kaso bi léegi ñu déglu Farba Ngom nañu dem déglu ji Farba Ngom gaay ma indil leen Farba ñu dem dégluwaat ko

mu am le but du report waa PDS le but

PDS dafa melni wok bu dajé gestu la pour wa APR Farba Ngom ne ko xam nga yow sama sœur nga damay bañ wa APR indi la sommation manam ñom ci ay dil lañuy dox ba mu paré ci may mëna Ndour fay dafa dem ñibi kërëm à 1h du matin sans yobale ak chauffeur man lolu jaaxal na nit nga yor auto ak chauffeur nga ne dedet duma ci duggu de damay jël taxi té am garde corps nak donc j'ai pas compris scénario bi ngeen di jouer un sen film bi raté sénégalais prenez nos responsabilités suba dañu woote marche que sénégalais yëpp daje ci marche ba inshallah pour dire non à ces bandits et ce régime Macky Sall doit nous donner nos élections organiser nos élections comme man sa morom gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu lépp lu beesaat ci mbirum Maimouna Ndour fay bi ci journée bi dinañu ñëwaat incha allahu rabbi waxaat ko ak yéen waa salaamaaleykum wa rahmatullahi